gis nga baas nii wala nga taal rajo li ñuy defe ne feetu man du labe yàlla bu ma a labe may feetu labe yi kay ñooy xaj ay di ñëw di ñëw lu ci man woon ku ma labe ci baas bi talalal dina am ay candidat yu candidat lu tax dañoo xam ne njëriñ yi ci njëriñ tey ci loxo bii la ko bu ñu doxee tool danañ ci xam dara ak leen ma sama bopp la soxla kon sooy ngir jeunes a a defal seen i ndey ak leen ngir jeunes leen leen ngir meer yi leen ngir a ñu jubati mën a torox mën a nuyoo di a ñàkk alal ñu nax leen rek dajalal leen sàngal ñii naan rek di naan sangal rek te ku nite war naa rusa naan sangal sangal bàyyi ma yi sax ko nit ku nite war naa rusa naan sangal nit ku nite war naa rusa yeeg sareetu mbaam di yuuxu mel ni dof kon tey tubaab bi da koo Elena toroxal Elena tardelo yooyu ay dëkk yu bëri ñu ngi fi yooyu moo leen mat fuuf dëkk yooyu ñoo gën a développé tey lu tax yooyu naan sangara lekk maam xuuf xuuf dof doflu seen cosaan boobu ñuy wax xaw ma bu misole nekk fa di gorante ay jaas di tamante di fanaan sangara di tëj di def lu bon lépp lañ fi nekkee une une infrastructure bu baax bu mu ñëw tali du antenne bu baax du rajo du forage bu baax këyit bañ nañ ko ba amuñu forage jaaree moo leen kapusel emia. Tin niwaron na kek nugon ay kita sa kiperas pagkaspiel. Tin niwaron na kek mo ang garas gumat. Transport transport gidida. Tin niwaron na kek mo ang kay morami alal. Tin niwaron na kek mo ang kay gustas. Tin niwaron na kek mo ang kay jaga gituma. Tin niwaron na kek julit bukit farbodi. Julit gidinek nyolay kagal kami. Tin tey lii waroon naa fekk naan sangara jéeg lépp mbaam góor lekk dox jéeg dox dox du ci nit waaye tey daal ñi fi nekkoon dinaan dañuy woote diine yeeyaay woote wuñ diine tey woote wuñ diine suba sëñ bi ibbil sa nopp fii te nga déglu ma lii ma la bëgg a wax bu dee damay contre di nga xam bu dee damay wax ma bëgg nga jëriñ di nga jaamu yàlla feccukaay nga xam ne bés a ngi ñëw dinañ la dagganal yu su nuur mu def ci biir dagganal la nit def ci biir dagganal la biir yàlla bi ci biir dagganal la waali sa kër bi ci biir dagganal la nga dangal ba say wende ci biir nga des boobu nii say xoti taat di xëy xale yu góor yi di dóor di naan di di fekk te ngeen ne fii mooy ngir gi ñuy jaamoo yàlla du lëkk ku la bëgg maa ko wax béréb bu jaamu yàlla wala béréb ñuy wax lu jëm ci yàlla waali sek bu ko jibee waali sek nitu sawara la sawara la bi maa ko wax même baayam teedoon ñu si sa sawara la bi barki si sawara fajalkat ñëpp buñ bàyyi sawar lañ dafa am loo xamante nag boo ko bàyyee mu am loo xamante même boo ko bàyyee làkk waxu ma ko de yàlla ko wax nit ak lu dul nit ak ngir ñu lekk di ko wa ma jaxal naw jasdatan laa taama wa ma kaanu xaalidin normalement plein de corps, mais qui ne consommait pas de nourriture, mais ils n'étaient pas des éternels. yàlla ku la ne àjjana dafa yomb day dem ku la woo ci àjjana daganalal la ko mii ma wax day gis nga séeréer dafa doon te gis nga yéen diine caaxaan yi di yéen diine caaxaan yi fi ne olof yi bokkat nañ ci tukulóor yi bokkat nañ ci xeet yu yi gën a dox ci xeet yi rek ñoo ci def bu ñu leen di naan muy séeréer joolaa njaago diine yi fi gën a mën a toroxal nit tey ba ci téye maam yi sa bale yi li wet mu doon diine bu la permettre ngay naan fajar di laal ci xale jigéen yi di def lu la neex diine yooyu tey ñetti xeet yu dox yu gën a dox gën a koomul ci Sénégal gën a nekk développé gën a ñuul gën a soxor ñetti xeet yu gën a ci des séeréer joola njaago point olof yi muus nañ ba wujji Cheikh Amadou Bamba نال جلالا نال جمالا لمن تولى سمايا Thank you. ñii respect bii ñii respect bii ñu toroxal leen ci séeréer si diis nañ bu ñu diisal lañu ko daa am ñu respect bii ci diine yooyu diig nañ ba noppi bu ñu diigal lañu ko waaye ku mel ni man doon xale waaye xale bu yàlla may te muy yéene xeet séeréer nam te gindi ay mën waaye am na ñoo ne yéene wuñ seede ñu jëriñu xoolal li nga nekk ban yoo mu bir mu bir la nit munoo jax munoo joxañ leen loo defal yàlla ci lu baax meer wala nga doon baax wala nga doon xale bu góor wala nga doon ndax jar na seetaat liir bi ñu nekkoon ba Jeyne pauvre nii ak yeneen dëkk yi wër Jeyne Jeyne war a xool dina am doole Jeyne dañoo war a xoolaat seen bopp bu baax ak yeneen dëkk yi wër Jeyne mais xoolal rek ñu toll nii ci ayib ayib boo toog ci Jeyne ci kër yi fekk ci tali bi teelul tamaate lu tamaate itam lu xool xool lu tamaate lu bat Sahabat Mahal bertemu Wali bini bakan Ekuan yang lagi mau ya Lagi pilih wala mipinku Menonton si mana Jadi Nanti dia punya hamil Ini tanah Ini kita gelo Ini kita rohal Ini kita Ini kita Ini kita Ini kita Ini kita Ini kita Ini kita Ini kita Ini kita nga war a mën a muureeku nag nga xool te xam li nga bëgg waaye xoolal kay étage yi ñu war a tabax fii étage yi neex na ma lool waaye am naa ci lu ma metti mooy lan étage boo ci yegg rek kër boo xool ku fay sang nga koy gis munoo ñàkk a def étage te kër yii ñaata at ñu ngi ci jëriñ ñu toll ña ngay teeras ak di étage Fouka ña ngay teeras di étage am tuuma Mbacke Mbacke dina amus diine ji dafa dox yooyu waxuma la teeras waxuma la étage waaye teeras yi ngay def mu nekk ci kaay ma naan ko boo xamee teeras bu baax la war da ngay bañ. xam nga ñu bindee woon yee yaay gën ñoo érage ak énaa day xam ne am na énaa loolu sa kër bis bu sama yi nokkee ñu bëri danañ moye seen seen érage ndax loolu ñu leen bëgg ba may liggéey ca Dakar numéro bi ba ma ko liggéey dafa ku ñëw ku ko ci yem mu ne waa gox waaye tardement bii ba kenn tardement bii ba kenn ba kenn